déglu xibaar dégg ñu ne presse na ngay tàkk ci laa woote gars yi ku ma woo kenn du ma jot kenn ci laa jot sama benn waaye mun ne ma presse jox na tàkk après laa dayu benn tali beeg si fii ba seen nii laa ko gisee mais nag métti na trop métti na trop man d'accord métti na ci man mais yërum ma sama boobu tey ñi nga xam ne seen magasin yi presque ay quarante millions cinquante millions ñoom ñoo loolu lañ ñàkk lakkale ko taxaw di ko xool ba mu jeex tàkk man ñooñu laa yërëm. tamit maa ngi lancé appel Macky Sall ñu gëstuñu ñu ndaw yi ndax Macky terrain bi sonal noonu ko fi trop surtout campagne yi passé soo waajuru jigéen laa dese su lekkee man maa ko jox sun naa ne man maa ko jox yor ay rakk ay jërbaat ñëpp wéeru ci man ba tey 2015 nga lakkalee 2019 tamit encore nga lakkalee metti na trop fajar gi balaa maa ñëw sax marché la ma chauffeur yëpp xam nañ ma parce que xam nañ ci marché bi ci damaa bokk ci ñu ngànk marché bi la ma chauffeur ne ma ah seen marché baa ngi lakk bi ma nee marché baa ngi lakk damaa jenn xew woo naa ku ma ku ma woo nga ne ma marché bi instant bi jeex na maa ngi doxee Colobane daanaka laa doxee ba ba fii nii te dañuy ñaan instant bi ni ñu lakkale nii ay centaine de millions la ay centaine de millions muy magasin yi table yi marché ambulant yi nga xam dañuy jël seen bagage seen indi ñu denn ko ay centaine de millions la parce que lii c'est pas la première fois am na fi trois ba deux fois mais presque boo dee xool bu ñuy taxawaatal sax du ñu am kenn ku ñu teg loxo. place Ada Diaw bii moo doon tàkk fii maa ngi fi taxaw di naan kafe maag booy bi fii jaay mu ne ma eh Pape ma ne ko ah mu ne ma lakk gi dina ñëw ma ne ko benn oto mënul fay lii ñaari oto ñoo ko mën a fay ñu indi fi benn oto oto bi jékki-jékki xam ne pression bi bari na mu dem le temps oto boobu di ñëw ci la yëpp jàppee mais bi muy commencé ci suba. fi ñu commencé suba benn place Aada Diaw kese moo fi doon tàkk mais xëy na xëy na li ñu indi pour dagg feebar bi mu jeex loolu moo matul moo jur lii tey mais bu ñu indi woon ñaari oto yu doy lii du fi am. ndimbal ñoom liggéey rek lañ gëm te ñun wax dëgg yàlla des nañoo gis suñu ndimbal ci état financement nit nag boo ko dimbalee dimbaleetut nga bàyyee ko ak yalwaanam fii damay wax ne négligence su sapeur pompier yi la ndax bañ ñëwee ñoom moo nañ koo foye ba lii am ni yëpp du am ndax ñoom ba ñuy ñëw benn maa ngi seer moo doon tàkk oto bu njëkk ñëw toog na presque pendant dix minutes ñu foo ne day monteraakoo la mu taala otom dem yoonam kon loolu mën nañu wax ne seen négligence la benn ambulance boo toroxal rek dama naan torox la nga lu mat vingt personnes benn ambulance boo toroxoo rek laa la wax toroxal nga man vingt personnes ndax gétt gu nekk gétt gu nekk sàmm sàmm ba ko fa nekk moo moo moo ko mën a xam lu waral lakk bi nag ñun ba léegi mënaguñ ci wax mais benn magasin bi nekk fii ci biir dépôt la ay pono la fa la lakk bi njëkk commencé ñoo sàppoor yi sàppoor ñëw mais li nga xam ne moo soogee lakk gi ñun xamaguñ ñu ndax booy wax da ngay wax ci loo xam ne moom nga xam